ay ma jambal jaañ ay ma jambal kula jambal ay ma jambal yaa ngi jamb dëkk bi ay ma jambal ay ma jambal ay lu waay wax ay lu waxal as Tooma Tooma yow da ngaa jóge ci feebar Tooma dama nga toog nga noppalu talal sa wérgu yaram Tooma talal njaboot gi talal sa bopp ba ci kanam Tooma Tooma ñuy jaruñ yenn coono yi jaruñ benn dépassé sax yenn énergie yi jaruñu ko pour man. billaahi jàpp ngeen ne lii ngeen di waxal Seydina Ousmane Sonko fii lay yem ci ko suuf deru gor si ngeen di yàq jàpp ngeen ne ci politique bi fii lay yem lu waay wax dinga ko waxaat ay ma jambal